waaw loolu moom am na ci ay jéego yu bëree bëree bëri parce que am nañ benn programme boo xam ne ñun ak waa USAID ñoo nekk di ko dérouler instant bi dans le sud du pays ci Sédhiou Tambacounda euh, Kédougou ak euh, Kolda foofu boo demee foofu di nga gis ni am na liggéey bu bëree bëri bu ñu def pour que jigéen ñi ak ndaw ñi déjà ñu intéressé wu xam nga nit ki boo ko boolee ci dara mun na ci ñëw bokk mais du ko intéressé mun na ñëw rek toog mais dañu bëgg intéressé leen ñu xam ne lii nii ñu fekkee ko bokk ci seen njëriñ la lii nii ñu fekkee ko ci àddu ci seen njëriñ la donc liggéey boobu vraiment am na lu bëree bëri loo xam ne daf nañ ko ci mais suñu sañoon mu gën a yokk gën a yokk gën a yaat surtout que léegi dañu am xarala yu bees yu fi nekk ñoo xamante ne dañ war a considérer comme opportunité pour que loolu gën a renforcer wu pour que ndaw ak jigéen foo mënti nekk bi par exemple damay togg dama à wala dara dem ci réunion bi mais fi nga a participer ci réunion am nañ possibilité bu def ko pour que permettre atteindre euh, performance bien sûr c'est possible et c'est rêve c'est pas que politicien rek mo maire nit mën nga ñëw am sa euh, médecin

Euh, femme bi handicap bi ñëpp ñëpp war a mën aspirer à être mère C'est vraiment euh, trajectoire de développement trajectoire de de de transformation en matière de gouvernance liñ ñu ciy say séntu di ko ci yaakaar fii ak 2030 mooy que ñu dem ba vraiment am ay maires yu jeunes yu bëri am ay mères yu jigéen yu bëri pas forcément que il faut mu nekk benn politicien bu bokk ci benn parti ñëpp xam nga kooku moo war a nekk maire